waaw Cheikh Abdoulou maa ngi lay delloo ziar bu baax dans la dalal ci émission bi euh, waxtaan dañ koy commencé ci point bu njëkk bi muy wal bi nga xam état bi daf ko dagg lu un mois ma lay luñ ko euh, liberté d'expression la moo Sénégal ba xam dafa Sénégal wala ak singili la goo xam ne dañ koo jàpp ne état bi daf koy singili groupe Walfadjri wala nan lañ ko mën a jàppee daal. waaw Serigne Ndiaye ginnaaw bi ma la siyaaraate siyaar waa groupe xibaar réew mi yëpp signal Walfadjri bi nga xamee ne dagg nañ ko ne moom bu bu bu fekkente ne eh, manees na ko jàngat ci ci ci ci ñaari mbir bu njëkk bi dañ koy jàngat ci entre fajiri ak état bu Sénégal. wal fajri boo xoolee keroog jamono bi nga xamee ne ñi ngi dagg signal bi bi coow liy tàmbali boobu dafay mel ne Cheikh ñas mi nga xamee ne moo nekk directeur bi wala bi ñuy wax PDG bi bokk moom mu ngi toogoon ci plateau bi di expliquer ci wàllu droit te jamono boobu noonu jàpp naa ne état bi kuy kuy diglu lu mel noonu arrangé wu parce que boo xoolee li manifestation yi doon tar tar tar tar mujjoon na jël nañ pause bu yàgg boo xam ne fii nii fii ci kër gii rek moom la maam Fallou Dieng doon enregistré di ko fi dugal mu koy jàngat ñun ñëpp ñu koy teewloo ndox jamono boobu muy expliqué ci wàllu droit nag loolu moom mooy li nga xamee ne jàngat naa ko ci ne mooy mooy liy gën a seen état bu Sénégal mooy euh, maanaam mbirum caaxaan moo xam ne xëy nañ euh, indil ko Sénégal loo xam ne kenn mësu koo xalaat wax dëgg yàlla. lu ne manon nañ ko xalat bam teus euh li ñu indi keroog suur boobu noonu comme mom jang na ci walu droit mu ñew diko ko ben par ben di di di toj yax bi ah wax deug tamit diko ko ak ay article diko wax ci xam-xam bi nga xamé ni jang nañ ko bo xolé signal bi fofu lañ ko daggé walu manifestation mo tax ñu dagg signal bi damay ragal ne bu boba ay image lañuy wax mais jamono yi nga xamé ni ñi ngi naan mom lañuy couper signal wal fajiri boo xoolee li gën a métti ci image yi génn gut ndax image yi ñun bokk nañ ci ñu ko doon couvrir bokk nañ ci ñi ko doon topp yaakaar naa ne image yi li ci gën a métti ndax wal fajiri bi ñu dagg signalam boobu ay 16 heures 15 euh, heures demi jàpp côté yooyu lay doon mais boo xoolee li gën a métti ci image yi mi ngi tàmbali 17 et jëm 17 heures et demi ba 19 heures demi boo xoolee 19 heures 19 heures et demi jàpp 19 heures 45 ci lañ coupé internet bi ndax gis nañ ne coupé nañ signalu wal fajiri yeneen télé yi jàpp nañ leen ba ñoom mënuñoo def li Walfadjri di def te teewul affaire yaa ngi continuer di gën a tar ci boobu nag ci lañ coupé signal ci lañ coupé internet bi li coupé lu signalu Walfadjri moo coupé internet bi rek loolu kon mënees bu fekkente ne diggante état bu Sénégal ak ak Walfadjri moom da ngay jàpp ne ak jaay doole la ak singali loolu tamit li nga ci mën a jàngat mooy état bii fi nekk nii moom bëggul fu askan wi dëgmal parce que boo xoolee ki <coughs> opposant bi askan wi gën a dëgmal moom moo gën a sonn ci réew mi télévision bi askan wi gën a dëgmal moom mooy moom mooy télé mooy télévision bi gën sonn ci réew mi boo xoolee tamit ci buñ fekkente ne ci liberté de la presse wala liberté boo xam ne ñiy taskatu xibaar ñoo koy tas boo xoolee tamit ñi nga xamee ne ci page Facebook yi ñu yor ñoom la askan wi gën a dëgmal ñooñu tamit ñu ci bari ñu ngi ci kaso bi waaw moom moom mooy mu état bi mooy état boo xam ne dafa bëggul foo xam ne moom foofu la askanam jox boobu kon signaalu Walfadjri moom lu ko kuppeelu loolu kese la loolu nag état bu Sénégal moom bu fekkonte ne dafay def te li muy def di ci boole xam-xam wala mu koy mu koy def ci ay ordre yoo xam ne su jëlee ordre bi day daal di publier benn communiqué nit ñi xam ne lii moo ko def waaye signaalu Walf bi dagg na lu mat trois heures de temps mënuñoo xam ku ko dagg ñu jiiñ ko préfet bu Dakar ñetti fan euh, jiiñ ko fi euh, Babacar ba muy doog a tàmbali Babacar Diagne lañ ko njëkk a jiiñ ñu dem ba ci yàgg Moustapha Diop ci boppam ne du Babacar Diagne ñu ne préfet bu Dakar préfet bu Dakar am naa ñetti fan man ay nit di ma envoyé vocal ne ma préfet bu Dakar moom moo moom moo dagg signal wal fajit ma ne waa ab préfet naka lay daggeeb signal gis nga ko comme ñu dem ba nga xamee ne nag woo nañ taskatu xibaar yi ba war a def li ñuy def comme ni ko Cheikh Niass waxe Moussa Bokar Thiam daal di yebal kenn mu daal di ñëw wane nag moom moo jël responsabilité dagg signal bi loolu mooy euh, maanaam man nga ko tënk ci ne état boo xam ne day jaay doole doole ji muy doole ji muy jaay nag dafa fàtte ne li ëpp ci askan woowu mu koy jaay ñoom ñoo ko dénkoon euh, moo tax daal dagg gi ñu dagg signal Walfadjri moom ci diggante ak état bi foofu nga koy jàngate te ne nag digganteem ak bu diggante presse bu Sénégal ak mm, Walfadjri moom dafay mel ne euh, état bi fi nekk réussir na loo xam ne lu jafe woon la maanaam fexe na ba xajjale presse bi parce que presse bi ci seen bopp ñoom dañuy xasante ci seen biir fi mu ne groupe Walfadjri li muy dund fi mu ne nii daa mel ne moom rek moo koy xeexal boppam boo xoolee daanaka gisoo ci yeneen gisoo yeneen presse yi gisoo leen ñu koy kii loolu mooy indi fi ne nii tamit bu ëllëgee am na yeneen presse bu beneen régime ñëwee am na yeneen presse yu war a dund li Walfadjri di dund xëy na bu boobaa Walfadjri mën naa toog di seetaan te loolu doonut lu gën ndax liberté de la presse ñoom ñi nekk ci presse bi ñëpp ñoo ko war a xeex ba nga xamee ne dañ koy am ci ci mu mucc ayib ca na mu gëne euh, bu fekkente ne diggante Walfadjri ak presse bi moom loolu la ñoom dañoo dañoo dañoo maanaam presse bu Sénégal moom dañoo dañoo dañoo nasax nasax ci lu bëree bari ndax say wenn say yu ñu waroonoo doon dañ ko dañ koo nëkku dañ koo nekkut au lieu ñu ànd mais dañuy xasante ci seen biir ba nga xamee ne bu ci kenn amee ay jafe-jafe sax njàppandal ga ca war a ci ñeneen ñi daanaka du ci am ba nga xamee ne la yàlla xam doy na. léegi si àdduloo ndax jàppoo ne Walfadjri dafa wéet ci xeex bi lool ndax dafa mel ne depuis mu kii moom euh, ñu coupé signalam beeg yooyu njàppale gi nga xam ne moom la ko yeneen kuréelu euh, médias yi waroon a jàppale ak ñi nga xam ne ñoo tënk journaliste yi dafa mel ni dañ ko seetaan ci yëf yi lool lool. ndax jàppoon ne tasaaroo guñ tasaaroo moo waral wal Walfadjri xaw a wéet ci xeex bi lool lool lool ba état bi war a am fit bii mu am nii bay coupé signal bi. waaw Serigne Ndiaye moom laay junj noonu ci kaw xam nga presse bu Sénégal moom jàppandal moom da ci ëmmatut jàppandal da cee ëmmatut parce que maa la koy wax ñoom biñ tàmbalee di xuloo ci seen biir rek nga xam ne jàppandal ëmmatut ni niñ seetaane Walfadjri nag moom boo xoolee seetaane wuñ ko kenn parce que Pape Alé Niang sax bañ ko jàppee gisoon nañ mobilisation yu ñu doon def. waaye Walfadjri moom niñ ko seetaanee dafa ëpp te yaakaar naa groupe bu toll ne Walfadjri ak li mu liggéey ci Sénégal ak li liggéey ci wàllu démocratie suñ suñ mënee couper signalam yeneen télé yi toog fii di waxuñu ci defuñu ci xeexlewuñ ko loola da ngay xam ne problème am na ñàkk nekk gi presse bu Sénégal ñàkk nekk wenn say nag du dara lu dul euh, euh, parloo gu ëpp dañoo parparloo ci seen biir ñii jëm côté bii ñii jëm côté bee ñu dem ba jàpp ne ku nekk dafa am fee féete parce que fi ne nii moom ci Sénégal gii bu fekkente ne dañ naan presse boo xam ne opposition bi la féetal directement moom da ngay wax Walfadjri rek Walfadjri nag moom boo ko joxoñee ci ne dafa far dafa faral opposant man naa bañ a nekk ab joxoñ bu metti ndax euh, wax dëgg yàlla opposant bu fi mas bu fi mas jaar rek yaa ngi moom yéen a ko ànd parce que bu dee 84 bi bi bu dee 84 jamono yu Sidi Lamine ba ba ba 2000 ba 2000 ba 2000 ba 2000 maanaam bi alternance di am nga xam ne ñu bari xam nañ ne Abdoulaye Wade bi muy gagné Abdou Diouf Walfadjri ji bokk na ci ñi tax résultat yi leer maanaam Abdou Diouf gaaw a mën a def daal di mu woot maître Abdoulaye Wade daal koy félicité booba ku ne xam na ne xeex bi. metti woon na ci wal fajiri ndax Sidi Lamine ak Ablaye Wade bokk nañ ab kaso tëdd noonu la continuer wal fajiri nekk fi taxaw taxaw taxawaay bu dëgër taxawal presse su Sénégal ci jamono yu méttee métti moom ak si FM kese ñu nekk fi wal fajiri euh, def lu am solo ba ñuy ñemee ñëpp ñëw ci la dem ba ñu dem ba ay Envi FM ak ay RMD ak ay ay rajo juddu ba ci RFM gii ci la juddoo nga xam ne RFM bi mu juddoo pour mu mën a dox sax dafa xaaj équipe bu fajiri jël ko pour mën a dox loola nag bu fekkonte ne taxawaay boobu noonu amoon jamono yi fi si defee mag fajiri di nekk taxawaay bu dëgër bañ amoon ak yeneen yéenekaay yi nañu boole woon doon wenn say bu fekkonte ne ñii booloo nañ ko état bi état Sénégal moom fi mu ne ragalul dara ndax daa nekk état état bu jànnaxee ba àgg ci dof dootu ragal dara ndax xam nga dof moom ragalul dara ndax xamul lu koy ndax xamul lu ko cay fekk état moom lim maanaam jamono yi ñu toll nii moom li mu bëgg def rek lay def waaye moom amatul lu muy lu muy ragal waaye nag bu ñu booloo woon dana gën a dana gën a yomb ndax bu fekkonte ne tey jii Walfadjri lii lañ ne moom la la def ñu tëj signalam te FM da koy jël def ko rek comme na ko Walfadjri defee woon bi ko Sud FM bi fi Sud tegee élément ñu coupé ñu ñëw tëj Sud FM Walfadjri da koo jël ne bu ñuy tëj nañ boole ñëpp tëj bu fekkonte ne presse bépp doxee nañ noonu ah peut ñu ne jàppandal nañ leen na xam naa sax bu boobaa moom mooy gënal état bi ndax état bi moom fi mu ne nii bu sañoon li li am dara du ci jàll dara du ci feeñ waaw sëriñ xam nga wal fajri moom wax dëgg yàlla ku ne xam ne ne moom moom boo booy fal balaa ngay fal yéenay ànd waaye nag ci toujours ci ñi lay folli lay bokk dama yaakaar ne kay état bi bi mu ko seqal mooy nekk démocrate mën a taloore loolu parce que wax dëgg yàlla euh, man jàpp naa ne sax buñ waxantee dëgg taxawaay bi Walfadjri taxaw nii bu fekkente ne mën nañoo wax ne jamonoy ah, Sidi Lamine Niass maanaam maanaam 2012 bi Macky Sall mi bëggee falu taxawaay ba Walfadjri taxawoon moo gën a dëgër ndax booba Sidi Lamine day day day invité ay boroomi xam-xam toog bi téléphone bi sëriñ ba nekk Touba woote wax ci réew mi sëriñ ba nekk Ndiassane woote wax ci réew mi sëriñ ba nekk Tivaouane woote wax ci réew mi waa léegi Walfadjri bii moom daa mel moom. bu taxawaay bi dëgëree teengit moom man ña fay wax lu lu saf weesuur maam biram wàcc weesuur Pape Makhtar Diallo weesuur Moustapha Diop weesuur Pape Sane ñeent ñi laa fa xam ñoo xam ne xëy na ñooy wax lu tar ak Pape Ndiaye ma nga xamee ne moom lañ yóbbu ca kaso waaye wal fajiri bi nga xamee ne Sid Lamine moo ko yoroon 2012 boobu dafa ibbi woon dafa ibbi woon penc bi nga xam ne ñi nga xamee ne dañoo bëgg a wax ñëpp da bokk ci kër sëriñ si dañuy woote di wax nga xam ne jàngoro ji day teel a saafaru parce que ñi koy saafaru mooy sëriñ sëriñ kilifa diina yi te ñu ngi ñu ñu ngi wax ci Walfadjri nga leen di dégg bu ngeen fàttaliku deux mille avant vingt trois juin deux mille douze ci diina jamono boobu sëñ Modou Kara Noreyni woote woon na mu woote wax ba ne maa ngi digal sama bépp taalibe bu mu dem suba ci marché bi Sidi Lamine bi mu coupé Sidi Lamine tontu ko ne ko euh, li nga wax di dégg la waaye nag say taalibe nga sañ digal waaye sénégalais yi nga xame ne ñoom dañuy xeex nooteel ak di xeex démocratie ñooñu sa sañoo leen a sañoo leen a sañoo leen a aaye te ñooñu danañ wuy si yaa ngi dégg ah, niki noonu kilifa yu bëree bëri doon woote kon xam nga ne kon booba moo gënoon a sax bii eh, moo tax nga xam ne dama jàpp ne état bii fi nekk moo mënta muñ rek waaye Walfadjri la mu doon teg état bu Ablaye Wade yàlla xam ne na tegu ko bi yàlla xam ne ne eh, Walfadjri tegu ko état bu Macky Sall bii ci wàllu image yeeg manifestation yi nam ko doon wane nam ko doon wane 2012 àndoon ci ak TFM TFM di ko def direct mu koy def direct TFM moo doon def direct sax mais Walfadjri boobu yaakaaruma ne mi ngi doon def direct da doon jëli image yi di indi ak ñuy jokkoo par téléphone comme ni mu ko doon defee keroog mais TFM moom fexe woon na bay def manifestation yi direct en 2012 parce que boobu ñoom itam ci combat rek lañ nekk li li tax bii mënuñu cee bokk nag parce que euh, ñoom mënoo journaliste yi fa nekk xëy na mënoo ne dañoo far waaye boroom kër gi moom dafa far dafa far bokk ci yëf yi parce que lam doon xeex 2012 lépp muy sëñ Youssou Ndour mi nga xamee ne moom moom TFM lam doon xeex 2012 lépp mi ngi lu ko gën a pire mi ngi xew fi mu ne nii te waxu ci defu ci kon nag moom xam nga ne dafa far. bu fekkente ni jëmmi Walfadjri nag moom wax naa ne la kuy falu moo lay fay waaye kuy folliku moo lay folli kon kooku xam nañ ne moom taxawaayam naka jekk noonu la ma seme Walfadjri ku ne xamee ne ko contre nguur waaye nag nguur gi mi contre moo war a am xolu muñ ba tax wërta tax fu ñu ne xet gi ne lay na rek mu daal di ko ne ràpp tëj ndax Sénégalais yi seetaan wal da nga leen war a respecté loolu dafa bokk ci ni yorinu réew bu jub loolu daf cee bokk waaye yow bu kii nee ni li muy wax arrangé wu la rek nga ne ko ràpp tëj te bu fekkente ne image yi wal yi wal fajiri doon wane ñu koy daw man jàpp naa ne na gën a signalu France 24 waratu da dox ci réew mi pourtant signalu France 24 yaakaar naa dañ koy coupé Mali de pourtant lu tax nii moom ba léegi ñoom coupé wuñ signalu France 24 ku coupé signalu wal fajiri parce que nee ni mu doon doxalee ci manifestation yi moo la neexut war ngaa coupé signalu wal kii war ngaa coupé signalu France 24 coupé signalu Al Jazeera parce que ñoom dèjà niñ ko wanee sax wal fajiri mënu ko ko woon a mënu ko woon mënu ko ko wane kon nag yaakaar naa ne daal lu ci ëpp mën nañ ne ay caaxaan rek la eh, nañu bu fekkente ne delloo signal bi mën naa nekk moo gën waaye jàpp naa ne eh, di ko couper nii moom day tax Walfadjri di gën a am doole ndax yaa ngi couper signal bi ñi ngi créé beneen seen YouTube continuer ni seeni émission yëf yi maanaam daal état moom bu jànnee xeex xeex xeex da koy jafe ndax lum lum laal rek day gën a bon ci moom. jërëjëf si Abdoulou ci jàngat yu am solo yooyu ci premier point bi léegi ñu ñëw ci deuxième point bi ñu war a waxtaanee lu jëm ci arrestation Cheikh Bara Ndiaye bi ñu ko jàppee léegi daanaka léegi mu war a def 15 jours boobu ba léegi ñu dugal ko ci kaso bi loolu moom ba jàngat nga ciy def maanaam da nga jàpp ne état bi daf ko yàgg xiif profité ci lii jàpp ko ngir bëgg koo dugal ci kaso bi wala da nga jàpp ne jege gum jege Ousmane Sonko moo ko waral wala léegi boobaak léegi bi ñu ko jàppee ñu ngi koy toppee lu jëm ci woote appel à l'insurrection mana woote woote boo xam ne daanaka mën naa yee fitna ak yu mel noonu loolu bañ jàngat nga ciy def. Serigne Ndiaye maa ngi <laughs> jàpp see baara moom xam naa def si jàngat dana xew a jafe ndax man yow yaa ngi dem ne nit ki bi nga koy doog a jàpp da ngaa wax ne dafa am ay pelante yu bari yu fi ñëw ñeel ko moo tax nga jàppi ko te pelante yi li ñuy bari bari pelante boo gis dafa am convocation. parce que man suma ma pelantee maam Fallou dama koy dama koy bindal convocation ci liy yoon mooy su ma ñëwee quartier bi ma nekk bu dee am na chef de quartier moom laa war a jox pelante bi moom moo koy yóbbul wala boog am na feneen bu fekkente ne police moo koy yóbbu tamit nañ ko jox benn police mu yóbbu ko wala benn ASP Cheikh Bara daa waroon na jot ci pelante boobu ba pare te pelante bi bu ci jotee am na vingt quatre heures pour bëgg am na droit am vingt quatre heures pour dem wuy ji plainte bi ah am na droit tamit buy wuy ji woo avocat am ànd ak moom waaye yow nit ki bi nga koy doog a jàpp da ngaa wax ne dañu dafa dafa am ay plainte yu bari yu tegee ci ndoddam d'accord nañ parce que Cheikh Bara mën naa am kat ñi muy tooñ bari na parce que man su ma tuddee tudd sama soxna tudd sama doom peut-être mën na mën na maa offensé mën naa ko plainte donte da koy faral def ci ay émission mais bu boobaa pelante yi bu dee quinze neel quinze yi la neel Demba Samba Bàcci euh, Makumba euh, Paate ñu xam ne ñii ñoo ko pelante convocation yi nga ne quinze convocation ñi ngi nii donte Cheikh Bara Ndiaye day jotandoo quinze convocation yi mu dem buy ji ànd ak avocat quinze personnes yooyu yëpp toppee bu boobaa ñu xam ne quinze personnes yi ñoo topp Cheikh Bara Ndiaye waaye yow da ngay dem jàppi nit ki fajaru fa toj ay viti ay vitram maanaam toj këram xëbal jabaram yëng indi fa fitna nga xam ne waa koñ ba rek buñ la teeroon a gis mën nañoo toj atu police ba ak nangam ak nangam googu façon jàpp moom kenn xam lan la yow bi nga ko jàppee da nga ñuy wax ne ay pérentil moo fa nekk dara dem ba ci ba ci suba si nga ne ñu moom kat da doon woote ak fipp jëm ci kaw askan wi te moo ne de moom bu fekkente ne manifestation yi sorti bi mu def après deux jours après manifestation yi sorti boobu mu def ci troisième jour bi bu fekkee sorti boobu dafay mel ne sax moom da doon apaiser parce que dafa doon wax ne maa ngi woo kii mu def lii maa ngi woo kee mu def lii yow nga ñëw ne da nga koo jàpp si ngir euh, dafa woote ak fipp est-ce que ñun du que man mii di wax nii ak lu bari ci sénégalais yi. duñ jàpp ne état bi de moom jamono boobu mer na rek te xamul kan la war a jàpp ah mu ne faaw nag kon ma teg loxo ñi nga xamee ne askan wi dañ leen di diglu Cheikh Ndiaye mi kat askan wi ñu ngi koy bàyyi xel faaw ma teg ko loxo comme ni mu tegee loxo yenn xale yi nga maanaam yenn nit ñi nga xamee na ñi ngi woon ci réseaux sociaux yi ñu leen di diglu comme ni mu tegee loxo ñooñu ndax état moom bu meree. ki ko gën a sonal rek yaa dim noonam euh, loolu moo waraloon ñoom bu ñuy jàpp dañuy dem di jàppi rek waaye wax dëgg yàlla man gisuma loo xam ne moo war a tax ñu mën a jàpp Cheikh Bara Ndiaye ngir manifestation yi fi amoon bu fekkonte ne dañ koo jàppoon avant procès bi ñu ne kat mën nañoo njort ne Cheikh Bara Ndiaye mi daa woote ak fipp waaye comme moom yow nit ki ñaanam dañoo lakk ab otoom moom biñ lakkee ab otoom même même pas une ci lakk gi ñu lakk ab otoom ci nga ko jàpp te lakk googu ñu lakkoon ab otoom it tax na alxames ji nga xamee ne moom ca la daan def chronique ca Walfadjri ci alxames jooju noonu ci nga àtte Ousmane Sonko alxames jooju sax moom mujjut teew foofa ba mën a wax ci Ousmane Sonko waaye legi ki ñu lakk ab auto mom mu nekk ci naqar ñu waroon ko jappal ñi lakkub auto mais moom dañoo ko mom japp ko lolu boo ko bëggee jàngat xam loy wax ndax ñun buñ sañoon buñ ñëwee fii di jàngat dañ naan lii nii la demee lee nee la demee waaye état bu Sénégal fi ne boo jàngat ci moom moom da nga naan day jaay doole rek day jaay doole rek day jaay doole est-ce que loolu est-ce que loolu lu normal parce que suñ sañoon tey ah Cheikh Bara Ndiaye kat daa tooñ Ahmed Khalifa Niass Cheikh Bara Ndiaye dafa tooñ euh, maître El Hadj Diouf ndax moo tudd moo moo moo na te moo ne lii moo ne ko laa waaye yow da ngay jàpp nit ki vingt quatre nga doog ñoo wax li tax lim def jàpp nit ki dañ war a xam lim def nga xam ne tey suñ ne arrestation Cheikh Bara Ndiaye bi ko bi bind arrestation bi naan dafa def nangam ak moo tax ñu jàpp xanaa Sonko ak Adji Sarr mi waral yëf yi sax Adji Sarr pelante na bañ xam ne Adji Sarr pelante na bañ déglu ko bañ bind convocation yëf yi doog a jib waaye yow léegi li waral coow li moom am na pelante waaye boobu ba léegi li waral coow li ñu ngi ciy jàpp ñëpp amuñu pelante amuñu convocation yow daal da ngay toog ba mu neex la rek nga dem jëli mel ne ku nekk ci dam yee yow nit ki ñaanam dañoo lakk ab otom moom biñ lakkee ab otoom même même pas une semaine même pas semaine ci lakk gi ñu lakk ab ci nga ko jàpp te lakk googu ñu lakkoon ab otoom it tax na alxemes ji nga xamee ne moom ca la daan def chronique ca Walfadjri ci alxemes jooju noonu ci nga àtte Ousmane Sonko alxames jooju sax mu mujj teew foofa ba mën a wax ca Ousmane Sonko waaye léegi ki ñu lakk ab otoom moom mu nekk ci naqar ñu waroon koo jàppal ñi lakkub otoom. mais moom dañoo wëlbatiku moom jàpp ko loolu boo ko bëggee jàngat doo xam looy wax ndax ñun buñ sañoon buñ ñëwee fii di jàngat dañ naan lii nii la demee lee nee la demee waa état bu Sénégal fi boo jàngat ci moom moom da naan day jaay doole rek day jaay doole rek day jaay doole est que loolu est-ce que loolu lu normal parce que suñ sañoon tey ah Cheikh Bara Ndiaye kat daa tooñ Ahmed Khalifa Niass Cheikh Bara Ndiaye dafa tooñ euh, maître El Hadj ndax moo tudd moo moo moo ko ne woon damm na te dammut moo ne ko lii moo ne ko laa waaye yow da ngay jàpp nit ki vingt quatre heures nga doog ñoo wax li tax lim def balaa ngay jàpp nit ki dañ war a xam lim def nga xam ne tey suñ nee arrestation Cheikh Bara Ndiaye rek journaliste bi ko bi bi bind arrestation bi naan dafa def nangam ak nangam moo tax ki jàpp xanaa Sonko ak Adji mi waral yëf sax Adji pelent na. bañ xam ne Adji Sarr plainte na bañ déglu ko ñu do ñu bañ bind convocation yëf yi doog a jib waaye yow léegi li waral coow li moom am na plainte waaye boobu ba léegi li waral coow li ñu ngi ciy jàpp ñëpp amuñu plainte amuñu convocation yow daal la ngay toog ba mu neex la rek nga dem jëli mel ne ku nekk ci dam yee. waa ci noonu ma laajaale ndax li ma jaaxal mooy Cheikh Bara dañoo wax ne appel à l'insurrection lañ koy toppee mujj yàgg bi mu demee ba foofu ñu diglu ko pare ñu ne waat dafa am lu mat ay dizaine de plaintes yoo xam ne ma nga fa doon xaar moo moo fa woon te moom biñ koy jëli amul woon benn plainte boo xam ne daanaka indil nañ ko ko ñu ñëw toj këram jàppoon ni léegi nii nga liberté doomu aadama dañ koo jël dañ ko bafoué Sénégal ba nga xam ne dafa yéeme lool appel en l'insurrection yi daanaka war nañu cee leeral lan ñun sénégalais xam lan mooy appel en l'insurrection parce que bu dee euh, bu dee euh, communication kii loolu mu communiqué woon muy émission boobu mu defoon ci taw ñu ko doon seetaan ci YouTube bi loolu bu fekkee mooy appel en insurrection boobu war nañ ñoo leeral lan ñun sénégalais bu baax jàpp ne liberté doomu aadama yi dañ ko bafoué Sénégal bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw ma Serigne Serigne Ndiaye moom maanaam gis nga réew banqaas yi dafa am banqaas yoo xam ne kenn da ko wërta fowe te yooyu yooyu lañ jël moom daal koy fowe justice boo ko jëlee nga politiqué ko jël ministre de l'intérieur politiqué ko jël jël euh, police nga nga xam nga moo waxee ministre de l'intérieur ak justice rek mën na ma continuer ñu dem parce que ñoom ñaar ñu yilif li ci def lépp parce que mënoon naa ci naa cee boole ministère forces armées parce que ministère forces armées moo yëre maale gendarmerie donte gendarmerie ministère de l'intérieur am na ci dogal ci benn côté waaye yow boo jëlee bànqaas si dëgër yëpp nga dat koy politique moom daanaka euh, waxuma la bafuge mais da nga da ngaa mabbu réew ma man man damaa jàpp ne ñun ña ngi naan Sénégal état état état état mais état état si boppam damaa jàpp ne état moom dafay gëj ndax état bu ñuy wax état mooy état boo xam ne dafay wattu askanam ku nekk ak ak ba nga am mu delloo lo ko loolu mooy état mais lu war mat ata ngi nii wala ñaari at état état di Senegal moom amut état di Macky Sall moo am eta di Senegal moom amut état di Macky Sall moo am parce que eta bi fi nekk li Macky Sall bëgg rek lay def bëgg du def li Sénégalais yi bëgg du def li Sénégal bëgg. bu buñ ne sénégalais yi mooy ni nga xamee ne dañoo nekk ay aw askan di dund ci biir Sénégal bu ñu ne Sénégal nag mooy réewum Sénégal état bi protégé wut ki kon état bi moom li Macky Sall bëgg lay def loolu moo ñu yóbbu ci nit ñuy jàppee nit ñi di la maanaam nit ki moom boo ko jàppee faaw nga ne daa def dara waaw ndax soo ma dabee dóor ma su ma geesoo da nga ne ma dama laa ja bu fekkee da maa ja bu fekkee da maa bëggoon a dóor sax faaw nga ne ma dama laa jaawale même leer na la yow moom jaawale ma nag maa bëggoon a dóor waaye boo ci bëggee mucc faaw nga ne ma dama laa jaawale kon loolu mooy waral jàpp nit ki ba pare wut doo ko wut loo ko taxal moom ñun suñ suñ suñ suñ luwaay buñ ko doon xool day mel ne ay lépp ci ñun ndax yow li ñuy jàppee nit ñi ak liñ leen di toppee ak li ñu leen di tëjee ak li nekk ci li nekk ci luwaay day wuute loolu nag bu fa réew àggee mooy indi. ñee taxaw fee di saaga ñee taxaw fee di xas ñi mooy indi yàq gu bari gi moo indi xeex bi ndax nit ki boo ko jaayee doole te amul fu mu ko faje moom bu gestoo lam jàpp ne bu ko tojee mu toj nga nga xam ne yëg nga ko rek loola loola lay rajaxe moo moo ñu yóbbu fi ñu toll fi mu ne nii mais wax dëgg yàlla arrestation yi moom yu bare bare bare bari du lenn loo xam ne lu tege ci yoon la dañ koy def rek juste ngir neexal benn nit boo xam ne bu xamoon boppam xam ne yooyowut loolu nag waaye eh, nag eh, li ci des moom yàlla mooy mooy atte daal mooy kii mais daal mbir la moo xam ne kenn mënu koo jàngat parce que boo ko bëggoon a jàngat ca yam ca rek da nga naan lépp jaay doole la